léeg sax ñu ne dañu jig jigéen wala dans les cas les plus extrêmes yaakaar ni dañ la liggéey wala da nga amee rab ci nit ñi dañuy faral di jàmbat problème yu bari jafe-jafe àddina mel ni bunt yëpp dafa tëju seen kanam léeg-léeg sax ñu ne dañu jig jigéen wala dans les cas les nga yaakaar ni dañ la liggéey wala da nga amee rab wala da nga seytaan ndax sa àddina lépp dafa dëgër lépp ay obstacle la ci gàttal mooy apprécier woo dund bi ngay dund côté xaritoo san papa parce que jàpp nga ni ñëpp dañ la bëggal lu bon côté mbokk tamit bu ñu waxee nga ni noon yi jiitu mooy say mbokk côté liggéey aussi côté finance ci li nga nekk neexu la gënalu la da nga amul choix côté sëy tamit mu ngi yëngu sa digganteek sa borom amoo sax force pour jaamu yàlla comme ni mu waree li ma bëgg rek mooy euh, ñu comprendre lenn ñun doomu aadama yi dañu nekk ay nit ñi nga xamante ni dañu soxla énergie bu ñu wax énergie positive mooy ku ne xam ne nit bu weesoo enveloppe corporelle bi nga xamante ni moom la ñu yàlla bindee dañu am li ñuy wax ruux te ruux boobu yàlla bi mu ko bindee daf ko programmer alimentation comme ni mu programmer alimentation ci suñu yaram ndax yaram bi xam nañ ne dañ ko war a sang dañ ko war a diw dañu war aussi di ko muur sol yére contre le soleil di ko protéger aussi contre le froid aussi di ko toppatoo ba nga xam ni di ko jox mu lekk di ko jox mu naan. ndax yaram boobu mun a soutenir suñu mission sur terre mais des fois dafa mel nit ñi dañuy fàtte ni dañu am ruux te ruux boobu su fekkente ni dafay nelaw amul yeewuwul nekkul ci pleine conscience dafay dund comme si c'était euh, dañ koy télécommander rek moom la ñuy wax subir sa vie dund goo xam ne di nga yeewu lekk naan def li nga war a def mais en aucun sentiroo ne dund gi ni ma koy dundee neex na ma kon il est temps nga taxaw nga def stop nga xool sa diggante ak sa borom ndax li may wax naan fondement bi la de soo ko négligé rek problème day daal di am léegi nag ñun julli di ñu am benn problème bu doy waar bu particulier mooy en général bu ñu waxee suñu diggante suñu borom rek nit ñi ñu ngi dem ci julli woor jàng alxuraan mhm, farata la loolu moom kenn du ko négligé lu maanaam c'est obligatoire mais problème bi fan la nekk mooy la fait que ngay jëf-jëf yi d'une manière mécanique yow boo jullee boo julli boo nee allahu bar sa xel bi daanaka mënatoo xàmme ban saar nga tari ba keroog ngay pare boo wooree aussi daanaka yaa ngi ci distraction ba koor gi yëgoo sentiratoo ko sax sooy jàng alxuraan yaa ngi koy répété mais xamoo sax saar yi ngay tari mooy lan kon ceci dit que da dund comme mode boo xamante ni mode automatique pilote automatique lay doon parce que lu tax mooy suñu cerveau li mu tàmma def bu demee ba mokkal ko dootul soxla benn effort de concentration pour def ko tey julli bi nga tàmma def soo waree julli tey sa cerveau soxlaatul benn effort mën na ko def automatiquement sa xel nekk ci leneen pourtant yaa ngi julli jàng alxuraan saar yi nga mokkal la même chose mën ngay jàng automatiquement alxuraan te fekk na sa xel mu ngi feneen parce que tax mooy saar mokkal nga bokkul ak Euh, saar yu bees yi ngay jàng kon suñu gisee ni kon lan moo ñu manqué ci moment boobu mooy concentration mooy concentration boobu lan ma koy def mooy sa conscience mooy sa xel mais aussi li nga xamante ni mooy sa am sa ruux teew léegi nag nit ñi la plupart problème bi ñu am mooy da ngay dégg la plupart ah xel de sama xel bi moom mënuma ko tënk maanaam sama xel bi mënaluma ko dara maanaam nit ñi dañ jàpp ni amuñu benn pouvoir ci seen mantal te loolu la parce que gëm-gëm la bu doy waaram ah, te nekkul te demeewul noonu mooy xel bi yaa ko moom xel bi eh, naka laa ko mun a expliquer xel bi sa jaam la yow yaay boroomam ndax xel boobu tey ak xol boobu yow yaa leen war doom te ba ñu di la déggal comme tey ni ngay amee sa doom nga yar ko éduquer ko ba mu lay déggal tey bu fekkente ne xel boobu ak xol boobu da nga ko tàmmal loo xamante ni nekkul à ton service mooy sa xel da nga tàmm ko alimentaire parce que tey suñu waxee ruux ruux bi lan moo koy euh, nourrir mooy li ngay xool li ngay déglu li ngay xalaat say émotion say jëflante kon xel boobu ak xol boobu nga xamante ni conscience bi nga xam ni tey moom moo war a euh, concentré wu ci act yi nga war a def tey su fekkente ni yaa ngi nourrir sa xel ci loo xam ne c'est pas bénéfique kon ceci dit que boo yeewoo sa programme dund déjà boo yeewoo jël sa téléphone yaa ngi xool loo xam ne amul la njëriñ xëy na sa julli boo koy def doo teewlu te euh, problème bi mooy tey bu ñu xoolee boo yaree sa xel par exemple tey su ma sama xel su ma ko jëlee yar ko ci suma ma yeewoo naa def li nga xam ne mooy sunna bi yonent bi sallallahu alayhi jàngale boo yeewoo nga toog quelques secondes sa kaw la nga def sa azkar boo defee sa azkar ba pare nga jog dem si sa toilette yaa xam da ngay sangu yaa xam da ngay jàpp nga ñëw julli julli bi nga ànd ak concentration xam nga foofu yaa ngi yee sa ruux parce que yaa ngi teewlu yaa ngi ànd ak li nga xamante ni tey mooy énergie bu positif julli nga fajar donc sa ruux yeewu na sa xel yeewu na boo paree nga def quelque étirements pour sa yaram yeewu ndax nga mën a sawar li des ci journée bi boo paree nga lekk lu la amal njëriñ lu la mën a téye ci journée bi kon gis nga de d'emploi de vie boobu ngay vivre mais def lay accompagner te dafay influencer d'une manière bu positive li nga xamante ni tey mooy sa journée mais su fekkente ni tey da nelaw ba huit heures yaa ngi war a dugg huit heures wala huit heures demi bi sonné nga fay ko mu sonné waat nga fay ko mu sonné amoo envie jóg parce que tax mooy démb dee ngaa tëdd nga jóg rap taloo julli taloo sangu taroo taroo def étirement nga sol sa yére boroosu gàddu dara loo lekk wala sa defa taloo lekk daw njëkkanteeg heure bi donc yaa xam ndax da jël sa oto dem fekk circulation bi ngay énervé wu wala yaa xam ndax dangay jël bus nga dem bus bi ngarte ko donc tous ces choses là négatives yow di nga xam ni dafay influencer émotion journée boobu yow euh, da am émotion boo xamante ni dafay naqari ku la romb ci mbedd mi même bu la xoolee xool boo xam ne neexul la sax yow da jàpp nit ki dafa lu mu la wax wala dafa lu mu la def nga egg fi nga liggéey aussi doo neex deret te journée boobu amaana boo moytu di nga xulóog nit kon suñu xamee ni kon la fait que tey ñu bàyyi suñu xel muy divaguer nu mu ko neexee mën nañu jural de conséquence yu néfastes ci suñu nu ñuy dundee ba dund gi dem ba nekk contre ñun te pourtant warul woon demee noonu kon war nañu bàyyi xel que ni suñu dund ñoo ko war a véhiculer maanaam ñun ñoo ko war a euh, naka laa ko mën a expliquer nekk acteur bi ndax acteur mooy ki teg ay acte mooy kii teg ay fait di ko dund ci ni mu ko bëggee dëgg la nag comme ni ma ko waxee y a des choses yoo xam ne bokk ci suñu plan plan wu yàlla la te du tee même loolu su ñëwee da koy préparer ba bu ñëwee da nga koy jël d'une manière positive ndax tey ki teel tëdd teel a yeewu def li mu war a def avec calme bokk de sérénité avec amour ba pare nag boole kook di istixfaar di jéggalu yàlla lu bëri di tudd yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi ba pare di ko teewlu kàddu yi nga wax nga di ko teewlu sooy tudd yàlla nga xam kàddu yi ngay wax lu muy tekki daf lay dimbali ngay ñam cafka gi nga xamante ni mooy li ngay wax nga xam aussi sooy ñaan ñaan yi ngay wax kàddu yi lu muy tekki daf lay may nga mën a jege yàlla ci sa xol mën a bëgg yàlla mais mën a am ubbeeku xol tey sant yàlla boobu la fekk nga koy def di ko teewlu ba pare di ko méditer waale suñu wax méditer méditation boo julee fajar ba pare nga toog le fait que ngay wax alhamdulilah foo toll ngay xalaat ay waay yàlla may na ma yeewu ci jàmm nekk en bonne santé amaan na démb ci guddi am na ñoo xam ne ci guddi feebar nañu hôpital la ñu fanaane ñenn ñi dee nañu ñenn ñi seen kër ñu ngi tàq ñenn ñu ngi nekk ci accident donc yow yàlla may na la nga nelaw ba yeewu jàkkaarloog sa njaboot jóg toog sa kaw si jaada sans peur ni xof yaa ngi nekk sa sérénité nga sant yàlla ci wér googu mais aussi nga sant yàlla ci mu may la aussi nga mën a julli ndax am na ñoo xam ne moment boobu ngay julli ñu ngi tëdd ci seen kaw lal bëgg jóg te leen am na ñoo xam ne sax boole wuñ seen programme ni dañoo war a jóg ñoom kon bokku na ci aussi nga sant yàlla parce que may na la xéewalu nga mën a jóg julli fajar ndax du ñëpp la ko yàlla may am na ñoo xam ne mën nañu jóg fajar dem liggéeyal tubaab wala dem liggéeyal keneen seen patron mais mënuñu jóg julli fajar pour yàlla suñu borom mais dama du ma julli pour yàlla sax mais julli pour sa bopp parce que fii lu fi waaye def tamit sa bopp nga ko defal ndax yàlla soxlawul sa julli ndax am na ñu koy jaamu kon lépp looy def sa bopp nga koy defal kon gis nga concentration boobu ngay nekk méditation boobu le fait ngay sant yàlla ci sa biir xol la gratitude wallahi alazim damay wax ni képp kuy jàmbat ay problème yi àddina boo jëfandikoo di sant yàlla ba pare nag di ko méditer di xalaat di méditer ci yàlla xéewal yim la defal yow ba nga juddoo ba tey wallahi alazim doo am temps temps jàmbat say problème doo am temps wu naqarlu say met say say problème parce que sa problème lu mu metti metti metti soo gis soo gis gën ku la gën a pire la te teewu mu ngi dund. kon suñu seetloo que ni yàlla suñu borom may na la xéewalu ngay nooyi feebaroo yaa ngi nekk sa santé yàlla suñu borom may na la aussi nga am sa xel ba mun a def li nga war a def kon di sant yàlla. kon ñu xam ni sant yàlla dafay raxas xol daf lay jégaloo sa borom te yàlla suñu borom moo ne boo ma sante ma dolli la moo tax ngay gis. nit ñii di jàmbat day mel ni yàlla daf leen di multiplier ay problème mais nit ñi di sant yàlla ba pare di apprécier seen dund seen dund day gën a neex léegi ki nga xamante ni yow sa dund mu ngi naqari ngay ñee wala boog di di laajte lan moo tax kii dundam neex lu tax kii dundam nangam parce que yow santoo yàlla suñu la nee sant yàlla nga ne a ah, dama wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah non alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah ala kulli yaa rabbi alhamdulilah yaa rabbi ci xéewal gi ma defal ci wér alhamdulilah yaa rabbi ci bët yi nga ma may may gis alhamdulilah yaa rabbi ci tànk yi nga ma may may dox alhamdulilah yaa rabbi ci njaboot gi ma may ñu ànd ak wér ngay lim li la yàlla defal te mënoo ko jeexal nag bu dee dëgg rek neex yàlla am na ci yoo xam sax da koy fàtte parce que pour yow ce n'est pas bi ngay nooy tey am na ñoo xamante ni dañ leen di solal ay masque bu ñu koy dund ñu dee laa <laughs> xawla wala quwwata illa billah moo tax doomu aadama boo bëggee gis ku am dund gu daal dund gu neex dund gu naat li yonent bi sa alayhi wasallam doon wax boo bëggee gis ku riche xoolal ku doylu bu ñu waxee doylu rek nit ñi dañuy jàpp ne mbiru alal la fekk na non non non non am na ñoo xamante ni du question dañu bëgg alal sax mais seen jàmbat moo bari ñoom laajuñu xaalis mais seen problème ak seen jëkkër wala ak seen jëkke wala ak seen goro wala seen donc ay détails yu future la ñuy nekk di ko dramatiser ba fàtte ni yàlla existé na. te wallahi lazim boo amee humilité soo amee nangu soo amee oyof sa biir xol bii ak say émotion parce que booy ñaan yàlla il faut que tamit nga présent il faut que sa xel bi teew sa xol bi teew comme ni ma ko sa xel bi ak sa xol bi dañu war a nekk ci sa service nga teewlu ko ngay waxak yàlla nga xam ni carrément yàlla mu ngi lay dégg ngay sentir émotion yi ba léeg nga nga yi mu mel ni yàlla mu ngi jàkkaarloo ak yow mais essayé ko nga xool ndax yàlla du nangu sa ñaan ba pare nga ñëw fii nga wax ma te ñaan dafa am ay règle am ay moment am na moment yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaan yàlla da koy nangu bokk na ci moment yooyu balaa ñuy julli fajar quelques minutes balaa ñuy julli fajar bokk na ci moment yooyu chaque àjjuma balaa jant bee so bokk na ci moment yooyu tey bu fekkente ni danga am ay da nga am ay problème yoo xamante ni daf la ëpp doole nga nekk ci naqar ñu tooñ la bokk na ci moment yooyu aussi su fekkente ni dafay taw donc bëri na mun nañ ko lim fii ba suba mais nga xam règle ñaan yi nga jiital turu yàlla yi ubbee ba pare xam li muy lu muy tekki turu yàlla bu nekk ak ñaan bi muy àndal bokk na ci aussi boo pare nga tëjee ko salatul ala nabi mais teewlu bi moo tax li ma naan teew problème mu teewlu lañu am mais booy ñaan yàlla aussi nga xam ni ah, yàlla suñu borom nag dafa am xeeg ma boo koy ñaan. li nga koy ñaan def la koy may ca moment ba nga ko soxlaa ndax yàlla du la may li nga bëgg da lay may li nga soxla <laughs> tey boo ñëwee di ñaan sa yaay par exemple nga nekk xale nga ñëw di ñaan sa par exemple euh, xaalis wala yaa loo koy ñaan nga di ko ñaan pour mu may la par exemple nga jënd benn jeu sa yaay xool na gis na ni yow yëre nga gën a soxla que jeu ndax yaa ngi rafle sa yaay du la may nga jënd jouet da lay jëndal yëre nga rey sa bopp naan pour pourtant yaay ñaanu ma la woon lii sa yaay moo la gën a xam ni ñaanoo ko loolu mais daf ko may parce que loolu nga soxla yàlla suñu borom tamit dafay fonctionner de la même manière léeg-léeg nga ñaan yàlla lii mu may la lii nga ni mais yàlla ñaanu ma la woon lii lii laa la ñaan parce que yàlla moo xam li nga soxla kon sois fier ci li la yàlla jox nga xam ni yàlla moo xam lii nga xam ni xamuñu ko moo xam li nëbbu moo xam li feeñ kon lépp looy ñaan ñaanal yàlla mais aussi nga nga bàyyil yàlla comme niñ ko waxee euh, xam ni li nga soxla la lay jox mais du la jox li nga bëgg ndax ñun comme ay xale dañuy fonctionner comme ay xale suñu bëgg-bëgg rek lañu xam kon suñu bàyyee xel ci loolu xam ne aussi yàlla du jëflante ku yàkkamti te boo yàkkamtee yaakaar ni yàlla danga ko naan abaraka ah, ba daa mu mu sotti la say mbir ne danga nax sa bopp dëgg la nag ah am ci say soxla yoo xam ne da da ngay ñaan yàlla manière bu intense yàlla may la ko ci saasi nga commencé jàpp ni sax wàll yu nga fekk <laughs> fekk na sori nga foofu c'est euh, li ñuy wax naan euh, moment boobu nga ko soxlaa yàlla xam na ni moment boobu nga ko ñaanee moment boobu nga ko soxla mu jox la ko. waaw léeg-léeg nit commencé ñaan benn ñaan ñetti ñaan mu commencé entre rek mu commencé bëgg a aj boppam fu mu eggul maanaam nit da am humilité wàccal wàccal nga xam ni doo dara yi wax dëgg yàlla nit nga boo xamante ni sincèrement bul natt sa bopp sa ci ah am naa place fii am naa non non non ñëpp am place ci yàlla mais suñu jëflante ak suñu borom suñu gëm yàlla mooy dëggal suñu place ci yàlla kon bu ñu nettoyé suñu énergie suñu nettoyé suñu xol nettoyé suñu ruux jël suñu xol bi branché ko ci ngëm yàlla mais jël suñu xol bi branché ko ci déggal yàlla ci nangul yàlla nekk à l'aise ak li yàlla dogal ci ñun mais nekk à l'aise ak dund gi yàlla bi mu ñu tànnal nekk à l'aise ci yàlla situation bi mu ñu teg mais aussi ñu nangu ko ñu rafetlu ko ñu bëgg ko ñu santee ko yàlla day nekk loo xamante ni dafay naatal sa nekk loo xam ne vraiment boo tëddee da ngay nelaw et que tu ne te prends pas parce que xam nga ni dafa am loo xamante ni nekkul sa capacité kon boo fi nekkee nga mer ko nga crise ko nga dund ko nga dee ko du changé dara kon doo noppal sa bopp bu dee am nga xel moo tax yàlla di wax ni borom xel yi lay waxal te nit ki tamit soo bëggee dund bànneex ci kaw suuf mooy da ngay ànd ak ñi nga xam ne dañu positive ndax mënoo xëy topp réseaux sociaux di déglu kaa di déglu ay fitna di déglu ñoo xam ne duñu wax jàmm di woo ñoo xam ne duñu wax jàmm sa relation yaa ngi sekk ak ñoo xam ne duñu la wax jàmm après nga bëgg sa xol bi jàmm am ci mais mënul il faut que na ngay éviter certaines situation il faut que nga koy daw pour nga mën a am dund bu équilibré xel bu dal encore une fois maa leen dox xel dañ koy yar waaw ndax sa xel su tàmmee xalaat par exemple lu bon nga toog di xalaat ay déy ay rey ay ay agression lii dina war de sama kaw lii de mais jëleel sa xel ci loolu nga xalaat projet ah di si un an di su ma sañoon nekk millionnaire nan laay nekkee millionnaire xaaral ma commencé xalaat ci benn business benn projet mais aw ma benn idée xaaral ma dem tàppe Google commencé ban projet laa mën a def ban business na ne commencé dem ci YouTube xoole mais attends sa xel boobu dina fi tal nekk di xalaat ay deew ak ay jeunes yow <laughs> doo ko tal doo ko tal da nga bëgg a évoluer sa jikko wala da nga bëgg a évoluer yaa xam sa mindset sa confiance en soi commencé jënd ay livre di ko wala nga dem def ay recherche xool ci vidéo coaching yi nga commencé di lire naka ngay def mettre en pratique liñ lay jox mais su fekkee da ngay consommer te doo mettre en pratique mais doo mës a am li nga bëgg maanaam àddina li ma wax naan euh, dund gu apaisant dund gu dal dafa yombul dafa laaj ay acte te ñu bëri ci ñun est ce que pare nañu pour metre en acte li nga xam ne ñu ngi koy jàngal ñu ngi koy consommer ci réseaux sociaux yi moo tax gis la majeure partie si nit ñi seen dund dafay kilbite dafay kaawute dañuy dund nii rek façade ah man de man aw ma problème tout va bien ñeew ma kenn nit fekk ni bla bla bla bla parce que au fond de toi <laughs> dundoo loolu da ngay nax sa bopp rek te nag façade yi ko fi ndax ku xam sa bopp kon naqar yeeg yooyu ngay renfooler soo bëggee mu lijjanti ko sa programme établir ko ca ba ngay balaa ngay tëdd déjà ci guddi ngay xool yow boo yeewoo sa routine. ni ngay dundee sa interaction say priorité lan moo la amal solo lu la amalu solo lu la amalu njëriñ arrête de attardé wu si ay détails ak ay futilité nga ranger sa dund cadré ko nga gis sa dund neex secret amu ci nga gis aussi sa dund di évoluer ngay avancer domaine yi nga bëgg a évoluer aussi comme ni ma ko waxee nga xool la ci évoluer mais munoo bëgg a dund dund bu débauche nelaw yeewu midi une heure wala nelaw julli fajar tëddaat balaa ngay yeewu 10 heures passé na sa dara du pare sa lépp chamboulé bu dee jigéen nga sa añ yéex a pare bu dee góor nga daanaka façon dund yooyu mënoo ko dund ba pare sa sa àddina baax dañuy faral di wax ne wërsëg ñi teel a yeewu ñoo ko moom te muy dëgg ndax ku teel a yeewu ubbi sa xol bii def ci naataange sant yàlla julli ñaan yàlla daanaka sa journée moom da ngay gis ne macha allah dafay neex. xam nga gisaguma milliardaire boo xam ne day nelaw àddinaam yëpp ba midi wala une après mu créer quelque chose kon loolu yaakaar naa li ma leen fi wax yëpp lu ngeen tàmm dégg la c'était juste benn fàttali bu ndaw boo xamante ni ñu fàttali ko xam ne ñun ñëpp ay énergie lañu maanaam dañu am ruux te suñu ruux googu dafa soxla alimentation alimentation ak équilibre dund ak dundin bu ñuy cadré ak yar boo xamante ni ngay yaree sa doom bul def lii bul wax lii bul tegu fii commencé ko ci sa bopp nga yar ci sa ruux bi yar sa baqen bi bul xool lii bul seetaan lii amalu la njëriñ bul wax ak kii du la avancé loo noonu nga yaree sa ruux bi noonu nga yaree sa baqen bi noonu nga yaree sa bopp ni ngay tegalee sa doom wala sa frère wala je ne kii ay limite di ko orienté noonu ngay orienté sa bopp boo la rëccee sax ba ngay seetaan loo xam ne amul njëriñ laaj sa bopp ne waaye yow ah mais li ngay seetaan amul la njëriñ li te nga cee bañ sa bopp te ngaa def amal njëriñ nga jóge ci loolu jàll ci leneen ci saasi am benn euh, méthode de activité boo xamante ni daf lay permettre boo defee déclic que ni fii waroo foon nekk wala lii waroo woon def rek nga changé ci saasi parce que fii secret daal amu fi lii mooy nekk li ñu bëggoon partage ak yéen tey di wax macha allah abonné leen ngeen partage vidéo beneen incha allah.